asalaamaaleykum sama gars ñi ñu ngi leen di ziare bu baax a baax fii ci réew mi sport euh, samedi le 7 euh, septembre 2024 ñëw ci xibaar yi guddi gi bu fekkee ne abonné goo ñu ngi sàkk nga abonné partage lii di vidéo bi lu am am solo ci seen bi xibaar yi ñu ci ànd ak euh, Serigne Moustapha Mbacke kenn la Serigne Touba. foo xam ni kii bu musaa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara yéen mbokki sénégal yéen mbokki àddina dal leen ak jàmm ci kii di sëriñ moustapha mbàkke ksp di kennal sëriñ touba surtout cheikh mahamadou lamine baara mbàkke xaadim rasul moom sëriñ moustapha mbàkke doon jëmm juy xett li ak di dimbali doomu aadama yi ci lépp lu jëm ci wàllum ñaan pàcc ak la te lépp mi ngi koy lay taaye alxuraanul karim wax yàlla sunu borom yéen ñi soxla listixaar ñeel seen biir ak seen biti bu ngeen jokkoo ak moom ci kàttunu yàlla yàlla mu defal leen ko te lépp lum la ci wax dara du ko dindi yéen ñi soxla wàllu seet ci seen liggéey seen dundin seen nekkuwaay ak la caaju bu ngeen jokkoo ak moom ci kàttanu yàlla mu seetal leen seen biir ak seen biti yéen ñi bëgg bayre moo xam bayre njaay wala bayre mbooloo ak bépp xeetu bayre bu mën a doon yow mi mu itteel jokkool ak kii di Serigne Moustapha Mbacke kennal borom Touba surtout Cheikh Mahamadou Lamine Bara moo xam muslaay ci àddina ci bët làmmiñ def def yi xeetu muslaay ak la caaju daf leen koy liggéeyal ci alxuraanul waxu yàlla sunu borom ubbeekukaay mi ngi ci ak ay secret yu doy waar moom Serigne Moustapha Mbacke itam dafay defar nopp te moo di boole góor ak jigéen muy borom kër ak soxnaam am na itam jaaro boo xam ni ci bayre lay dox am boo xam ni ci muslaay lay dox am boo xam ni ci ubbeekukaay lay dox moom Serigne Moustapha Mbacke itam dafay dindi cat ci yaramu doomu aadama ba mu set wecc ndaka noonu itam mi ngi woo mboolem góor ñi nga xam ni dañu amee impuissance sexuelle di maanaam néew kàttan ci wàllug sëy mi ngi ci ay garab yu wér wóor yu efficace moom Serigne Touba di sëtub Cheikh Mahamadou Lamine Bara Mbàkke Xaadim Rasuul borom Touba guy mbind jokkoo leen ak sang bi ci ndimbal li ci tawféex lii mu leen su fekkee nag da bëgg a jokkoo ak Serigne Moustapha Mbàkke KST mu faj say ajo mën nga kaa woo ci numéro bii di 78 662 14 14 78 662 14 14 boo jokkoo ak moom dina faj say ajo incha allah. Ah. foo mën a nekk ci biir réew mi kazaalika bitim réew woo ko téléphone wax ko lépp luy sa soxla ak sa yitte mu defal la ko ni nga ko bëggee ci kàttanu yàlla mbokk yi bés ni ki tey xam leen ni lépp lu woon ca maam ja tey jii sunu borom def na ko ci sët bi ak sëriñ Moustapha Mbacke kennal borom Touba sëtub Cheikh Mahamadou Lamine Bara jóg ngir jàppale askan wi ci lépp luy seen itte ñeel seen dundin ak seen nekkin te lépp di alxuraanul karim ak ndono yu mag ñaar. xibaar yi dañ koy daal di commencé fi nga xam ne moom mooy ca Ligue des bi wax ci groupe A2 bi donc démb diggante France ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Italie bu kii di Donnarumma donc ki nga xam ne moom mooy waa France. def benn entame début boo xam ne donc bu mucc ayib la mais par la suite donc la nu gis équipe bu France boo xam ne dafa dell ginaaw ci ñu gis France bi nga xam ne moom la ñu gisoon durant li nga xam ne mooy euro bi maanaam daal tàqale Euh, donc ak euh, manque de donc li nga xamante si ni moom mooy euh, lii di confiance ñu nemmeeku ko ci joueurs yi donc bu ñuy xool nag yéen ci joueurs yi ñu ngi doxal nice ci club mais bu ñu ñëwee ci équipe nationale bi donc da ngay gis changement loolu nag peut-être que fait xam ne moom mooy Didier Deschamps way maanaam daal airu Didier Deschamps donc moom moo jeex tàkk ci li nga xam ne moom mooy équipe boobu nga xam ne moom mooy waa France comme ni ñu ko rappelé tey rek daanaka li daal kii di di Didier Deschamps moo dal sunu waa ji di Aliou Cissé parfois football moom day laaj lu bees. parfois ngay def lépp sax mu jaar yoon mais lu bees li da ciy bokk pour que lu jaar yoon yi donc daal di continuer. pourtant ki nga xamante ne moom mooy France daa débuté match bi donc débuté bu baax baax ba tax na sax doomu Paris bi di Bradley donc Barcola daal di dugg ci histoire footballu France ndaxte moo marqué le but le plus rapide de l'histoire donc de la sélection française moom ki nga xam ne moom mooy Barcola way but bi nga xam ne moo gën a gaaw ci histoire footballu France toll bu mu ci doon si ñaar yooyu moom mooy jiitu parce que ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Franck Soucé Franck Soucé ci atum 1991 moom 34 secondes la dugale woon kii di Émile Venante ci atum 1938 35 euh, secondes ki nga xam ne moom la ñu tuddee Louis Saha ci atum 2006 36 secondes kon bu ñu xoolee ki nga xam ne moo jiitu woon 1991 euh, la woon. 34 secondes donc kii ñëw def ko ci 12 voire même 13 secondes kon Barcola donc marqué na premier but am euh, ci moyen France mais aussi tamit euh, daal di lay dugg ci histoire li nga xam ne moom mooy France ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Italie donc manis naa wax ne gagné bi ñu gagné équipe bi nga xam ne moom mooy France nekkut loo xam ne lu ñu miin la ñoom waa Italie waaye parce que bu ñu xoolee diggante Italie ak ki nga xam ne moom mooy France dernière victoire pour les Italiens contre. équipe bu français boobu noonu faaw nga dem ba 2016 2016 moo doon dernière victoire bi mais dernière victoire ci biir France ndaxte match bi parc des Princes la woon maanaam terrain bu. Paris Saint-Germain donc biir France la loolu depuis euh, donc soixante dix ans maanaam daal lu mat euh, juróom ñeen fukki at a ngi nii gisuñu donc itali door kii di France ci biir terrain loolu nag li mu wane mooy équipe bii di itali moom it euh, xëy na mi ngi yéeg parfois wàccaat mais kii di Luciano Spalletti mi ngi ci yoon liggéey liggéey bu mucc ayib pour redresser équipe bi pour dellowaat équipe nationale Italie fa nga xam ne fa ko xamee woon mu continuer di gagner que yaakaar naa ne match bi nga franc Italie mi ngi ko gëj gis peut-être depuis euh, ba mu gagné euro 2020. dañuy bàyyi ko ci euh, équipe nationale Italie ak France boobu noonu waaye dañuy continuer ba tey ci Ligue des Nations bi. wax euh, ci kii di Cristiano Ronaldo match bi doxoon diggante Portugal ak ki nga xam ne moom mooy euh, courage bu kii di Luka Modric donc victoire euh, pour équipe nationale bu Portugal bu kii di Cristiano Ronaldo. Ronaldo boobu nag Ronaldo après match bi donc moom mooy jël buzz bi malgré victoire bi nga xam ne donc Portugal am na ko li tax mu gën a jël buzz bi nag mooy lii di 900 bi yi nga xamante ne dugal na ko moom kii di Cristiano Ronaldo gaañ 900 bi nit nekkut loo xam ne lu yomb la li nga xam ne mooy firndeel na ñu jël benn joueur joueur boo xam ne si ni carrière am fukki at ak juróom la diire maanaam daal ko xam ne carrière am 15 ans la diire lu mat fukki at ak juróom chaque année mi ngi football at mu jot mu dugal cinquante bi du tax mu am 8 900 bi loolu 750 bi lay am kon kii di Cristiano Ronaldo ñëw dugal 900 bi donc pour nga am 15 ans rek maanaam 15 ans de carrière nga dugal ci li nga xam ne moom mooy 750 bi 900 euh, bi c'est impossible bu fekkee ne chaque année 50 bi ngay dugal te xam ngeen ne xale yi nii léegi à part peut-être Haaland ak kii ku si demee ni kii di Mbappé pour que ngi see dugal lu mat 50 bi par saison pendant li nga xam ne moom mooy 15 ans sur les prochaines années day loolu loo xam ne lu jafe lay doon donc Cristiano Ronaldo lépp lépp au total mi ngi joué lu toll ci 1236 monsieur dugal 900 bi Lionel topp ci. ba dugal 838 bi sur 1409 euh, match yi nga xam ne joué na ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Bikan topp ci moom it euh, daal di joué 530 match dugal 805 bi ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, Romario topp ci 768 bi yi nga xam ne dugal na ko pour kii di Pelé nag 757 bi ci 815 match pour kii di Romario nag moom 963 la kon bu ñu xoolee Ronaldo moo ëppale li mu dugal 900 mais aussi tamit moo ëppale li nga xam ne fubal na ko ci nombre de match toll ci donc 1200. 36 matchs en tout cas ñoom ñëpp ay joueurs lañ yoo xam ne ay légendes de football lañ parce que ni ñu ko waxee sànq pour que nga dugal cinquante bi Euh, pour nga dugal dugal ci cinquante bi faaw nga def 15 ans de carrière yoo xam ne chaque année da nga dugal au moins 50 bi donc ñii di am ay cent ñii di am cent ñii di am cent donc Cristiano Ronaldo nag bu kenn yaakaar ne dafa bàyyi non non bàyyiwul boppam pare na donc pour dem 1000 bi parce que moom ki mu teg bët mooy kii di Pelé keroog sax mi ngi gaar waale ci benn interview boo xam ne dañ ko amal moom kii di Cristiano nee na daal respecté na trop ku ci demee ne Pelé. waaye nag moom ay bitam daa am preuve xam nga ne gars yi ñu ci bëree bëri ba tey jii nii ñoo ngi xel yar di sikk sàkk bit yi nga xam ne kii de Pelé daan na ko dugal euh, ci li nga xamante ne moom mooy carrière am ñii naan ay bitu donc yuñ ko jàppalee la ñi naan ko day yokk ñi naan ko ay but la yoo xam ne dañ ko dañ ciy yokk mat si entraînement yi xam nga lu nekk gars yi dégg nga ko ci ay ci ay rumeur Cristiano Ronaldo nag moom def na benn petite classe peut-être na classe bi dina xamuñu ko koy tontu ndaxte ki ko tontu génn na àdduna donc ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Cristiano Ronaldo moom nee na ay bitam daa am preuve loolu nag ba mu koy wax ma donc mbalag la ci jullu donc doon cavale parce que ay retaan yu rëy la ci boole moom kii di Cristiano Ronaldo donc defu ko. pour manque de respect kii di Pelé wala pour qui que ce soit Cristiano Ronaldo nag 900 yi mi ko dugal donc ci club bu séminé Real Madrid bu ñu xoolee Real Madrid Cristiano Ronaldo fa la ëpp lu mu dugal ay bii Real Madrid Cristiano mi ngi fa nekk entre 2009 ba 2018 2009 ba 2018 Cristiano Ronaldo donc dugal fa au total lu toll ci 450 bii ci mooy Real Madrid donc euh, fu ëpp fi Cristiano Ronaldo dugal ay bii. mooy Real Madrid moom moo tax sax mooy meilleur buteur histoire bu Real Madrid kon Cristiano Ronaldo les 900 bi ki nga xam ne moom moo ko ci gën a jàppale moom mooy effectif bu Real Madrid ak li nga xam ne Real Madrid defal na ko ak tamit li nga xam ne moom defal na ko club boobu di Real Madrid. beneen équipe bi nga xam ne moo ci topp te mu topp ci Real Madrid après 450. mooy Manchester United Manchester United xam ngeen fa la Cristiano Ronaldo njëkk a xamee Ligue des Champions Manchester United fa la Cristiano Ronaldo njëkk a lan mooy Ballon d'Or moom mi nga nekkoon Manchester United entre 2003 ba 2009 bi ñu koy transféré fa nga xam ne moom mooy ci biir Real Madrid moom dugal na fa lu mat 145 bii. donc dañuy jël donc les cinquante bi yu ki nga xam ne mooy Ronaldo au Real Madrid yokk ko ci les cinq bi yi nga xam ne am na ko yaakaar naa au total dina la jox ay 595 bi yoo xam ne Cristiano Ronaldo am na ko beneen bi ci topp mooy mooy euh, Portugal. mooy Portugal bu ñu xoolee Cristiano Ronaldo joué na donc lu et un match Cristiano Ronaldo nag xam ngeen ne yàgg naa football ci équipe nationale donc am na fi li nga xam ne mooy carrière boo xam ne si buris la daanaka dafa fël rek commencé daanaka ñu koy woo ci équipe bi parce que moom daanaka ba muy ñëw ci équipe nationale bi mi ngi am 17 ans 18 ans donc il est très jeune ba muy dikk donc ci li xam ne mooy sélection Portugal bi donc booba ba jàpp 2005 Cristiano génne dugal bit équipe nationale nekkul loo xam ne lu yomb la club bi ci toppi mooy kii di Juve donc Juventus du terrain Juve bi nga xam ne Cristiano Ronaldo ma nga fa nekkoon diggante 2018 ba 2021 ba ko Real Madrid donc transféré ci benn somme bu toll ci 100 millions xam nga raaroon na ci jamono 2018 ñu gis boo xam ne am na li ma 30 ans ñu jël ko jaayee ko 100 millions loolu encore doon yëkkati wane dayop ki nga xam ne moom mooy Cristiano Ronaldo donc troisième li nga xam ne moom mooy équipe bi ëpp lu mu dugal euh, ci les 900 bi wara ba quatrième équipe bi moom mooy kii di donc waa Juve après Real Madrid United Portugal maintenant Juve bi ci mujj nag moom mooy kii di donc Al Nasser Al Nasser bi nga xam ne actuellement Cristiano Ronaldo mu ngi fay football lépp lépp dugal na fa lu mat 68 bi donc 68 bi la dugal au total ci club boobu noonu di Al Nasser te pareegu fa te am na mu demee moom mooy doon dernier club am. moom moo ko wax keroog nee na probablement Al Nassr lay jëlee li nga xam ne moom mooy retraité maanaam daal fasul yéene seetaan demaat ci beneen club donte nag waa Sporting bu Portugal bëgg nañ kaa jël mu jeexale fa li nga xam ne moom mooy carrière am ci Sporting googu sax lañ koy jeexale ndaxte les cent bi dugal na Sporting bu Portugal cinq bi waaye Cristiano de cinq bi la dugal ci équipe première bu Sporting bu Portugal parce que yàggul Portugal Sporting trop ndaxte 2002 2003 la. ndaxte li ci des ci équipe bu xale ya la nekkoon mais ci équipe mag ñi ndax ko mag ñi moom daanaka yàggu fi diggante 2002 2003 mu dugal 5 bi après Sir Alex Ferguson récupéré ko yóbbu ko United mu nekk United diggante 2003 ba 2009 mu jugee 2009 dem Real Madrid nekk fa 2009 ba 2018. après 2018 nag Cristiano Ronaldo jugee Real Madrid pour Juve ba 2021 2021 ba 2022 daanaka mu nekk donc ci United l'attaque muy dem fële ca Al moom ki nga xam ne moom la ñu tuddee Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo yaakaar naa nag bokk na tamit leneen li nga xam ne jox na ko bës ci biir début septembre bi mooy que moom nee na euh, euro bi nga xam ne gagné na ko ak Portugal dafa équivalent ak coupe du monde maanaam daal Cristiano nee na euro égal coupe du monde donc ci ab dayo kon daal li mu bëgg a wax mooy moom nee na. nëmmul li nga xam ne moom mooy coupe du monde Cristiano nag xam ngeen ne moom li tax sax parfois am ñu ko apprécier mooy que lu mu lu mu nekk lu nekk moom da koy jox dayoo parce que keroog wax na fi ne Al Nasser déggal championnat bu euh, Arabie Saoudite mook championnat bu France ñoo tollu niveau gis nga day jox day favoriser li nga xam ne moom la yor tey waxaat na euro euh, ak coupe du monde ñoo tolloo loolu nan ngeen ko gisee ba ci kanam incha allah.